asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu fas yéene jëfe ndigalal Sëriñ Tuubaa li mu tàmm ci dëkk bi te di ko yeesal ci mbooleem koo xam ne Sëriñ Tuubaa day sa lépp te nga dëkk ci dëkk bi ñu sant yàlla bu baax ci boole gii nga xam ne sama borom dana boole sëriñ bi boole nu ci ñu yëkkati kàddu nag ci barab bii nga xam ne ki sos barab bi ka ko meññi di sëriñ Aliou Diouf Lambaay dafa jaayante ak sëriñ Touba ca jamono ju yàgg 1886 boobee la jox boppam sëriñ Touba muy mbir mu yàgg moo xam ne lu làmbaay am tey fu murit àgg tey fu jëfu yu àgg tey fu pas-pas àgg tey fu sagoo sëriñ bi àgg tey sëriñ yi àgg na fa ak njabootam gi kenn nag ci njabootam di sëriñ Mamadou Diouf Lambaye moom la fi bàyyi moom moom kër gi jaboote njaboot gi fi nekk ah ba mu wàccee ab liggéey <coughs> nu desal ko ci njaboot gi ñii nga fi fekk it te yaakaar naa ne jël nga ñëpp na nga xam ne ñëpp it njabootu sëriñ bi la kenn ku ko génn amu ci waaye nag li gën a am solo mooy li nu fi indi loola mooy bisab Serigne Touba bii nga xam ne lu mu am cala ko am ñor ko lool te kenn ku ci nekk xam na ne ab jaam walla jullit walla nit ku baax la mu daa fonk ba di ci woote ndimbal ndimbal lu ko sama borom dimbale woon la ci teral ko ci sagal ko ci noflaay ci wërsëgal ko waaye nag Sëriñ Tuubaa mi ci lañu jëkk gise koo xam ne ah, la ko saa borom teg mu tegoo ko ngir lam doon wut te boromam rekk am ko te ci bis bii la ko amee natt yañ ko ca teg yàgg ga mu yàgg metti ga mu metti wéet ga mu wéet te lépp boromam jaral ko ko wala mu doon wut mu am ko ba tey ji fu waay nekk waxuma Sénégal waaye ci àdduna loo ruq-ruq ndimbalal Sëriñ Tuubaa ak sag baak tiranga ja fekk na la fa nga nekk loolu yi nag Sëriñ Tuubaa jëkk a gis ak coono yu nga toggoo ba am la nga am nga seet ne li nga am lépp sama borom la ko jox te fii mu fii mu ko jaarale lu metti la waaye nag mu xam ne su tegewut coono yooyu muñu ko tiranga ji mu am du ko am mu waxal boppam nag ne lott naa ci sant sama borom man dong moo tax mu woo ci àdduna sépp foofu ay mën a nekk te jullit bu bis bi dikkatee nga def ko sa bis di ci sant yàlla di ko sant la Serigne Touba ndax nit lu su fekkee ne daa am loo xam ne su ko ñàkkoon da koy wuti su ko amee da koy fonk kon nag noonu murit yi rawatina jullit yi rawatina bokk yi ndax boo ko dee seet fii Serigne Touba toll ah bu nu gàttam xel. ba jàpp ne noonu dongu noo ko moom sëriñ tubaa jëfi suñu borom la ñëpp ci la ku ci génne sa bopp yaa ku ci génne waaye sëriñ tubaa génnewul kenn beddiwul kenn te tam gii di fi nekk ba ci jëmm ju tedd ji fi toog te toogal ko fi sëriñ Muntaxa moom Cheikh Mouhamadul Basir di jëwriñ ju mat jëwriñ ku gis aw doxinam gis yitteem gis pas-pasam xam ne noonu lay doxe kon nag nanu am yéene nanu am pas-pas nan am taxawaay bu rafet soññe bi nag moom du gudd ci saa bopp rek laay dale rikk waay nun ñi nga xam ne danoo nekk ci boppi kër yi te doon ay jëwriñ toogal fi sunuy maam wala toogal fi sunuy baay nanu xam ne bisab Sëriñ Tuubaa yu bu dikkee teraanga ji nga xam ne dong yi fu nekk waaye da ko jóge ñii di ko yónnee ci bitim réew ñii di ko jofe ci réew mi ñii di ko joxe ak fu ne mun dafa jóge di tegal ci sunuy loxo nan góor góorlu ba ñu nu ko jox bu ñu nu yàpp bu ñu nu xeeb nañ fab lépp delloo ko ci ganu sëriñ Tuubaa ndax teraanga kat su fekkee ne ba màggal gi di ko gudd joxuñu la ko su màggal gi wéyee du ñu la ko jox kon na nga xam ne bisu màggal gi rek a tax ñu jox la ko nanu am jom nanu am fulla nanu gore nan doylu sëriñ Tuubaa ndax kat màggal gi kat day bisab boppam bu ñu koy firndeel aw doxinam wam doon dox waaye nag kenn ku ci sëriñ Tuubaa teral na la teranga joo xam ne ji wuti naag màggal gi dañuy tedd waxtu wu ne as gor nag saa boo ko defalee lu mënul boppam ndax sant moom daa doon baat boo xam ne bu gàtt la waaye bu rëy la ndax as gor mën ak ab jullit mënuñoo weesu sant Sëriñ Tuubaa dañ koy sant te di sant taxawaay bii nga xam ne mi ngi ko taxaw ci yoon wi fii nag ci kër gi sam xel dal na fi sama njort rafet na fi ndax man kat gis naa ne Sëriñ Moodu ba mu fi bàyyi ko léegi dem na ci fanweeri at ak lu topp waaye nag at mu jot fa nu yemoon daaw dañ koy weesu bu baax a baax a baax te noonu yi ma santaane noonu laa koy def noonu de duñ desal ab kawar junni nag su ma ko amoon ci màggal gi man maa giñ ci borom Tuubaa ne ab kawar du fi des du ma ko sàmmi du ko jaay du ko maye li tax màggal gi jox nu ko rek foofu rek laa koy yemale loolu it bëgg naa ci lool ndax rakk yi nga xam ne ak jëwriñ yi kër yi nga xam ne maa ngi ñoom a bokk sëñ bi kenn ku ci nekk itte jii ma nekk ak ak fonk gii ma fonk bés bi fonkale nga ma ko ndax kat manoon na manoon nañoo wax ne teraanga ji dugg ci kër gi di jaar ci loxol kilifa gi nga xam ne moo jiite kër gi ah ci la ñu yem waaye ñoom ñi ñëpp kenn ko ci ne am na loo warloo ci màggal gi lu bokkut ak liy jaar ci sama loxo bopp lii dale ko ci sëriñ yi mi di mag ba ci rakkam yi topp ci moom ba ci jëwriñ yi kenn ko ci ne am na taxawaay boo taxaw ci màggal gi di ñaan sëriñ Tuubaa nag mu saxal na ci dong yi nga xam ne nag seen wërsëg ak seen yitte ak seen pas-pas ak seen ak taalibi joyal nañ ko jëmee ci kër gi seen dara génnul kër gi noo ngi ñaan Sëriñ Tuubaa fayal nu leen te yokk leen wërsëg ndax loo baax baax loo am am yéene soo amul doole doo mën a jëf soo amul pas-pas doo mën a jëf soo amul wërsëg doo mën a jëf ab murit nag su amee pas-pas tëlewul dara waaye su amul pas-pas mënul dara sa borom yàlla nu defal pas-pas defal nu yitte defal nu ak yokku defal nu ak muj di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp sans borom yàlla nu boole taxawu saayir ak baatin sëriñ bii woote màggal gi te nekkal ko fekk jëwriñ mi tedd yi nga xam ne ñoo saytu liggéey bi sans borom yàlla defal euh, yokk gu wér gu ànd ak wër ak wërsëg ak fan wu gudd lool ku wal mburu tuddab dëkk hmm, ku ne suñu ko santee loo xam ne da koo matale ñamu ko seqal euh, ñu ko tudd ndax kat kii nga xam ne sëriñ bi da ko jox kàddoom te matale ci biir ak ci biti ku ci war a bokk bokk nga ci mën naa ne ñëpp ci lañu ndax liggéeyub Sëriñ Tuubaa sori du tee nga bokk ci ñu ñàkk laa xam du tee nga bokk ci at yu néew tee nga bokk ca ñu ñàkk laa xam du nga bokk ci kenn ku ci nekk nag dox yi wii sëriñ bi dox rafetlu nan ko bu baax te di ko ñaanal sans borom guddal aw fanam musal ko ci lépp luy gàllankoor doomu aadama ba jëf ba jëfam pas-pasam mu man ko bañ a yeggale mm-hmm. noo ngi koy sant bu baax nun waa làmbaay day dalee ko ci kii fi toogal sëriñ Aliou jaar ci sëriñ Asad may rakkam jaar ci Cheikh Abdoulaye Diouf mii di xalifa sëriñ Thierno ba ci nun surga sii nun day lu baax rek lañu koy yéene moom lañ koy ñaanal fa ko teg bët bi ko sëriñ bi xool rek lañu koy xool yàlla na sama borom guddal aw fanam te àggale mim bitam ak yéenem saay rek baatina jërë ngeen jëf salaatun lasi